waaw mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya quatre-vingt-onze ci li nga xam ne nii moom mooy suratul an'am fi suñu borom di waxee ne wa ma qadaru llaha xaqa qadri kon alhamdulilahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dund ci waxtu màgg wi di chahru ramadan wërsëgal ñu ñu fekkee la nga xam ne mooy fukki guddi yi mujj mu dëppale ñu it ñu nekk ci néegam di jàng ab téeréem ñu ngi ñaan suñu boroom yal nañu yàlla boole nangul loolu lépp ca itamit defal ko képp koo xamee ne nii yaa ngi koy déglu ak foo mën a nekk ak képp ko koy nam déglu te fayal ñu ña nga xam ne ñoo dox suñu diggante di leen ko jottali kon ñi ngi jël ay borom bi di wax naan wa ma qadaru llah xaqa qadri bu dee Cheikh Ousmane pare na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوحا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom mu ne wa ma qadaru llaha xaqa qadri nit ñi day màggaluñu yàlla dëgg-dëggi màggaayam ay nattuñu ko dëgg-dëggi nattuwaayam إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ci bi ñu naan yàlla day wàccewul ci nit lenn lu mën a doon qul man anzala alkitaaba allazi jaa bihi muusa neel kan moo wàcce téere ba nga xam ni indi woon na ko yonent yàlla muusa nuuran wa hudan linnaas mu nekk ak leer nekk njub ñeel nit ñi taj'aluunahu qaraatiis ngeen def ko la nga xam ne mooy ay këyit tubduunaha wa tuxfuuna kasiira di feeñal la leen ca neex di nëbb lu ci bëri wa ullimtum ma lam taalamu antum wala abaa'ukum ñu xamal leen la nga xam ne xamu leen ko woon yéen ak seeni baay qulil qulillah nel kooku day yàlla la summa zaruhum fi xawdihi fi xawdihim yalabuun gannaaw ba bàyyi leen ci seen xuus ga rek ñu nekk di fo wa haza kitaabun anzalnaahu mubaarak lii day téere la boo xam ne wàcce nañ koo barkeel ko musaddiqu allazi bayna yadayhi muy dëggal la nga xam ne moo ko fi jiitu woon li tunzira umma alqura wa man xawlaha ngiree nga waar lii di ndeyi dëkk yi muy makka ak la wër makka walazina yuminuuna bil axirati yuminuuna bi ña nga xam ne dañoo gëm alaxira day ñoom gëm nañ ci la nga xam ne nii mooy téere boobee wa hum ala salatihim yuxaafizuun te ñoom day dañuy wattu la nga xamee ne nii moom mooy seeni julli mi ngi noonu mbokk da ngay gis ne doomu aadama yi musuñoo deñ di nangul ne yàlla am na ba ba bi ñuy dugg ci vingtième siècle presque te la doomu aadama yi commencé nag di fittirlu ñoom Karl Marx ak ñoom Darwin ak ñoom ñooñu daal di weddi amuk yàlla complètement waaye bu ñu xoolee la nga xamee ne nii moom mooy yéeféru jëkk ya ñoom ñëpp nangu woon nañ amuk yàlla kan ma bind asamaan ak suuf yàlla ku leen di wërsëgal yàlla ku leen nangam yàlla xamoon nañ ne yàlla moom mooy aji moom ci waaye nag suñu borom nee na joxuñu woon yàlla dëgg-dëgg gëddaam bokk na ci loolu mbokk màggaayu yàlla ga xamuñu ko woon mbokk jullit da ngay xam ne suñu borom ak màggaayam heure boo ci xalaat subhanallah rek ngay wax lii nga xam ne mooy asamaan yi nga xam ne niñ koy waxee daiman jommal na scientifique yi bi leen yàlla tàggatale observatoire ñuy gis ay milliards ci ay années loolee jommal na leen suñu borom nag yàlla nee na asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yëpp ab ngëb la koy def yowmal qiyaama waaw kooku jalla wa ala moom ndax mënees na koo natt laa borom boobu yi tamit yéeféer yu bari dañoo jàppoon ne yàlla ko sori la ba am na ci ñoom ñoo xam ne sax dañ jàppoon ne bu ñuy wax ci suuf yàlla du ko yëg yastaxshawna siyaabahum li yastaxfu minhu mi ngi noonu jàpp nañu ne suñuy wax ci suuf sax yàlla du ko dégg looloo tax ñu amoon ay xërëm yoo xam ne dañ ne wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa suñu amee soxla ci yàlla mu mag ma ci kaw asamaan dañuy ñëw ci xërëm bi ñaan ko toroxlul ko ngiree kooku nekk intervention suñu borom nag mu ne déedéet xanaa xamuñu ne yàlla moo leen gën a jege seeni buumu xol xanaa xamuñu ne yàlla mooy ki nga xam ne dara ump ko kon ci gàttal rek màggaluñu yàlla dëgg-dëgg màggal bokk na ci màggaluñu yàlla dëgg-dëgg màggal ñu ne yàlla wàccewul benn téere waaw gaa yi ku toll ne yàlla bind asamaan yi rafetal bindam def ci ay milliards yi milliards yi biddiwam bu nekk muutal ko fu muy jaar tàggat jant bi mu nekk xusbaan comme niñ koy nar a jàng ci kanam utal ko calcul règle bu muy jaar weer wi naka noonu daal di jël nag doomu aadama yi ak ak ak jinn yi jóor leen ci kaw suuf ne leen yéen dem leen seet leen nu ngeen xalaat rek ngeen doxale ko ndax mbokk ku màggal yàlla dëgg-dëgg màggal dana nangu lii la wallahi looloo tax suñu borom yàlla ne ñi naan yàlla wàccewul téere day ñoom day màggaluñu yàlla dëgg-dëgg màggal yàlla mboolem ñi fi mas a nekk ci kaw suuf tëralal nañ leen yoon bu ñuy jaar mu ne leen waaw kii nga xam ne mooy Muusa alayhi salaam moo ana téere boobu mu indi woon mu nekk leer ak njub te mbokk téere yi borom bi yépp noonu la demee day nekk leer goo xamee ne nii dalay leeral pas-pas bu sell ca la nga war a gëm waaye teg la ci aw yoon nag ne la gannaaw ba sa pas-pas selli fii nga war a jaar ca loolu yi tamit tey jii boo doon da ngay tukki guddi da ngaa soxla yoon wu leer yoon wu yaawoo jaar waaye soxla it lu lay leeral ba nga mën a dem loolu mbokk mooy alquran yi noonu la demee nuur la wa hudan ñeel nit ñi amma bu ñu delloo ci yéeféeri yahudi ñoom luñ daan def mooy dañuy jël téere ba di tawraat daa di koy xaaj ay xaaj ngeen alxuraan ji ngeen yor ma ngeen ko def fukki xaaj ñaar fukki xaaj def ko ay xaaj su ko defee heure buñ dajeeg seen taalibe yi xool xaaj ya nga xamee ni nii ak lënt ma nga ca mën nañ caa sukkandiku ba nax leen ñu jàngal leen ko gis ngeen lii la yàlla wax amma aaya yay wone dëgg-dëggi wéetal yàlla dëgg-dëggi nit ñi yemoo loolu ñu nëbb ko loolee mbokk nag nekk lu garaaw a garaaw te bari na lool ci nit yi tey ñu koy jëfe ci diine yàlla ci mooy aaya alxuraan yàlla yàlla ca neex ngay tànn daal di koy firee na la neex yeneen aaya yi nga xam ne mooy muhkamaat ya doon dindi lënt yépp nga teg ko de côté ca mooy gëm lenn ci téere bi weddi leneen ci téere bi loolee mbokk ñu bay ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala ne yàlla moo leen xamal xamal seen bàyyi lu ngeen xamul woon loolu boo ko laajoon yéeféer yi yahud yi ñoom dañ la wax ne loolu yàlla moo ko wàcce woon léegi nag ñu bëgg a nekk di weddi wàcceeg alquran su ko defee yow yeneen bi ne leen yàlla day moo def loolu nga bàyyi leen ci seen famille ñuy xuus ala kulli xaal ci gàttal mbokk gëmal ne suñu borom jalla wa ala bokk na ci màggaayam mu wàcce ab téeréem ne fii laa bëgg ngeen jaar fi képp koo xam ne jaar na ca téere ba koo koo màggal yàlla waaye boo saxoon bus bu ne nga def téeméeri junni laa ilaha illa allah téeméeri junni allahu akbar te ndigali yàlla yi nga teg ko de côté xamal ne màggaloo yàlla na yàlla yooyu ñu màggal ko ko ñaareel bi li suñu borom wax bi mu posé question yi ba pare ne leen ñoom buñ tontu ak buñ tontuwul yépp xulillah nel kooku yàlla la am na ñenn ñu jàpp ne kon xulillah toog naan allah loolu ci jaamu yàlla la bokk ba nga gis benn mbooloo bu mën a toog lu jege trente minutes une heure de temps seen wax yépp de passé allah allah allah allah mbokk loolu dañuy gis ni ka téere bi wàcce woon ci moom di suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ña nga xam ne ñoom lañ ko wàcce woon ci ñoom di sahabatul kiram loolu musul nekk seen doxalin musul nekk ci doxalinu yonente bi mu toog di woo turu yàlla woogoo xam ne tur wa kese lay woo allah allah wala ñu naan huwa huwa huwa wala ya latif ya latif ya latif loolee mbokk daa dab lislaam waaye la yonent bi jàngaloon turu yàlla day am lu ko jiitu wala am lu topp ca gannaawam allahu akbar mi ngi noonu la hawla wala quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah loolu astaghfirullah allahumma salli loolu la waaye tur yàlla kese ak tur bu mu ca mën a doon rahman ak samad ak lu mu mën a doon yonent bi alayhi salaam jàngalewul ay doomu aadama toog di ko woo kese mi ngi noonu borom bi bi mu waxee loolu ci tawraat mu ñëw nag ci alquran ne lii de téere la boo xam ni ñun yàlla ñoo ko wàcce mi ngi noonu ñun yàlla ñoo ko wàcce ba pare daal di koy barkeel mbokk alquran yi ngi noonu chahru ramadan bi ñuy màggal lan moo tax mu màgg mooy yàlla ci wàcc alquran laylatul qadr lu tax mu gën fanweeri junni guddi benn guddi rek gën fanweeri junni ci ay guddi lu ko waral ca la yàlla wàcc alquran muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu waral mu gën ñëpp ci moom la yàlla wàcc alquran naka noonu it doomu aadama bokk na dënn ba gën a barkeel dënn ba alquran nekk bokk na la nga xam ne mooy kër ga gën a barkeel kër ga ñuy jàng alquran bokk na daje ya gën a barkeel ña daje tiim di jàng alquran yal na yàlla boole ci suñ daje bi loolee mbokk kon mi nga noonu suñ borom mu ne maa ko wàcce donte ne ne wax na ko feneen anzalnaahu mubarakun liyadabbaru ayatihi yàlla da ko wàcce ngir ñuy settantal ay aayaam ba xam la yàlla bëgg ñu jafe ko xam la yàlla bañ ñu daal di koy te ñu daal di koy bàyyi gannaaw amma lu bari ci doomu aadama yi ñoom nangu nañ ne alxuraan barkeel na kon heure bu ñuy ngénte bala ñoo tudd liir bi nañ wàcce kaamil waay bu suñ bàyyi dee nañ ko wàcceel kaamil sama kër gi may sanc naa ko wàcceel kaamil mi ngi noonu mbokk loole ay mbir la yoo xam ne daa dab lislaam waaye yonent bi ak sahaabam day ñoom xamuñu woon loolu lañ xamoon ci barkeb alxuraan day mooy jàng ko jëfe ko ak di ko di ko di ko liir xarf boo jàng am nga fukki tiyaaba waaye xam nañu loolu wasiila la mooy moyen la rek waaye du jubluwaay alquran jubluwaayam du tiim du ko jàng jubluwaayu alquran mi ngi mel ne rek ordonnance dem nga ci professeur bi mu bindal la benn ordonnance yow boo ñëwee ci sa doom na ko liiral ma ordonnance bi mu liiral la ko jubluwaay bi mooy liir ordonnance bi lu baax la ndax mooy tax ñu xam lan mooy jubluwaay bi waaye jubluwaay bi mooy dem dindi garab ga daal di koy jëfandikoo loolee ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu ñu fàttali gars yi théâtre ñu ne màggatum caamin ma daa dem ci feebar dem ci médecin bi bi mu ñëwee médecin bi visité ko pare bindal ko benn ordonnance comme ñoom lañ xam te dëkk ba sëriñ bi bu la bindalee saafara da ngay xooj naan mu daal di dem jël ordonnance bi daal di xooj daal di naan ah yàlla defit mu daal di tane ñu teg ca ay jamono mu feebaraat ñëw ne ah ah ma- ñu- ah docteur ah waaye saafara ba nga ma bindaloon day bindalaat ma ko ba ma demee ba xooj ko naan ko rek lay wér gis nga parce que léegi rek day am feebar yoo xam ne ci xel la nekk gis nga def ci xel la nekk bo mi ngi noonu ala kulli xaal ñu bàyyi ci xel bàyyi bàyyi ci xel bu baax ah almuhim suñu borom subhanahu wa taala mu ne noonu la ko barkeele mu nekk di dëggal la nga xamee ne nii moom moo ko jiitu woon muy wane it ni ñu ngi ñaan xale yi ñu gën a góorgóorlu ba ko wallahi portable ak a baax waaye alxuraan a ko gën a barkeel de li ñuy ñaan rek bépp ndaw galla waay mu bàyyi xel su ma xëyee 24 heures yi ñaata ñaata heure laay tim sama portable gannaaw ba rek nga diviser ko par 3 bu la neexee sax diviser ko par 10 wallahi am na ñoo xam ne nii bu ñu amoon chronomètre fi ñu yeewoo fajar ba baa ñuy tëddaat ñaata heure lañ tiim seen portable boo ko xoolee lu mu néew néew dañ def 6 heures de temps waaw lu mu néew néew 6 heures de temps moom daañ ko def seen portable te waaye loolu diviser ko rek par 6 chaque jour nga am une heure de temps boo jagleel téere borom bi day barke la sëg dund mi ngi noonu yokk say daraja àllaxira borom bi nag mu ni alxuraan yi ngi nii dañ ko wàcce ngir nga waar ci jaami yàlla yi commencé fa ko yàlla wàccee du ummul qura moo tax it mooy dëkk bi gën a tedd ci dëkk yi mi ngi noonu dëkk boo xam ne benn rakk ba fa julli muy téeméeri junni rakk ndax fa la yàlla tànnoon wàcce fa alquran ngiree nga waar waa dëkk bi ak la ko wër mbokk mi ngi noonu alquran dañ ko wàcce ngiree ñu waar doomu aadama yi delloo leen ci yoonu yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam it daa di ne sa yablagu haza al amr ma balaga leylu wa nahar fu guddeeg bëccëg yegg alxuraan dana fa yegg te daanaka ñun suñu génération ñi ngi koy dund néew na tey nga dem planète terre demal Australie demal Amérique demal Asie demal Afrique demal dëkk boo mën a dem te fekkoo fa julit loolu jafe na trop mi nga noonu donte ne ni loolu première mbir bi rek la waaye bala adduna tukki lii di atteb alxuraan dana atte adduna yépp mi ngi noonu kon suñu borom subhanahu wa taala mu ne def naa ko nga war ummal qura ca mbokk makka yàlla ko placé daanaka ci centre kaw suuf muy dëkk bu arrangé ñëpp suñu borom yàlla ci kattanam bay xool la nga xam ne mooy globe terrestre bi nga xool makka da ngay gis ne dafa nekk ci digg fi doomu aadama yi dëkke suñu yàlla nattoo woon tey jii ñuy dem di nuñ koy waxee di aji ji fu mel ni ay Suède wala dem di aji ji fu mel ne ay ay ay ay Jakarta ay yu demee noonu wala di aji ji ca pôle ya nga xam ne quatre-vingt-dix degré sous zéro nit ñi daañ sonn lool waaye gis nga suñu borom fi mu placé Makka ñëpp la arrangé gis ngeen ummal qura suñu borom nag ni ñi nga xam ne gëm nañ àllaaxira day ñoom gëm nañ alquran ah yàlla luy seen mandarga seen mandarga mooy dañuy wattu seeni julli mbokk julli mooy teqale diggante jullit ak yéeféer yonent bi alei salaam nee na al ahdu baynana wa baynahum alsalaa man tarakaha faqad kafara lii teqale suñu diggante ak yéeféer yi mooy julli ku bàyyi julli yéefér nga moom la yàlla jëkk a faratal ci xeet bi moom la nit ñi it mujj a bàyyi moom la nit ñi mujj a bàyyi daan dem ba kenn dootul attee téere bu yàlla bi ci kaw suuf daanaka loolu xaw nañ cee yegg daañ dem ba kenn dootu aj mag daañ dem ba kenn dootu woor buñ demee nag ba dernier jullit ña gën a doy waar ñooy dem ba bàyyi julli mi ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yowmal qiyaama moom la la yàlla jëkk a laaj kon julli googee day wane ne gëm nga àllaaxira rawatina julli goo dëppaleeg na yonent bi santaane ñu julli nee na inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar day dox sa digganteeg li yàlla araamal da lay jegeel ak sa borom jalla wa ala loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk jullit képp koo xamee ne nii yow da nga ne doo julli xamal ne yow sa ngëmug àllaaxira yaa ko wax waaye yàlla moom nangulu la ko ndax suñu borom mu ne allazina yuminuna bil axirati yuminuna bi luy seen mandarga yàlla hum ala salatihim yuhafizun mooy ñoom dañuy wattu seen julli di ko def ca waxtu wa di ko def ca laab ga di ko def ca toroxlu ga yal na yàlla boole ñu ci
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
barakallahu fikum suñu borom mu ni wa man azlamu mimman iftara ala allahi kaziba moo ana ko gën a tooñ ci kiy dóoral yàlla ay fen aw qaala uhiya ilay wala mu naan man day wax yu nañ ci man yàlla wax naag man walam yuuxa ilayhi shay walam yuuxa ilayhi shay'un ca yàlla wàccewul ci moom dara wa man qaala sa unzilu misla ma anzala allah ak kookee naan man day danaa wàcce lu mel ne la yàlla wàcce walaw tara idi zaalimuuna fi xamaraati almawt cay boo mënoon a gis jamono bi toonkat yi nekkee ci man di tem dee mi ngi noonu ci labug dee walmalaaikatu baasitu aydihim malaaka yaa nga tàllal seen loxo yee ca ñoom axriju anfusakum naan leen génn leen seen bakkan yi al yawma tujzawna azaabal huun tey day lañ leen di fay mbugulum toroxtaange bima kuntum taquluuna ala allahi gayra alxaq ci li ngeen nekkoon di ko wax ci yàlla ci lu dul dëgg wa kuntum an ayaatihi tastakbiruun te ngeen nekkoon ci aaya yàlla yi di réy réylu wa laqad jitumuuna furaada tey diggal ngeen ñu kenn kenn kama xalaqnaakum awwala marra comme na ma leen binde woon ca njëlbeenu jëkk ba wa taraktum ma xawwalnaaku waraa zuhurikum la nga xam ne sotti woon naa ko ci yéen ci loo xam ne nii ay xéewal la yu ngeen doon bànneexoo yooyu yépp tey bàyyi ngeen ko seen gannaaw wa ma nara ma'akum shifaa'akum gisuñu it mu ànd ak yéen ña ngeen jàppoon nañu leen di ramm allazina za'amtum mooy ña ngeen xam ne dañ leen di ramm allazina za'amtum nga xam ne da ngeen leen jortoon annahum fiikum shuraka na ñoom kat nekk nañ ci yéen ñu ngeen di bokkaale ak yàlla laqad taqatta'a baynakum dagg na day la nga xam ne moo leen lënkale woon wa dalla ankum ma kuntum tazumun te sanku na ñeel leen la ngeen nekkoon di ko jort mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu borom jalla wa ala mu ne ana ko gën a mën a tooñ ci kiy fenal yàlla jalla wa ala bokk nañu xam ni bokk na li yàqoon diiney démb yàq diiney tey mooy fenal yàlla te it yow julit moytul sa kemtalal kattan jàng nañu sànq ne alxuraan yi ngi nii yàlla wàcce ko ci yow ngir nga jàng ko xam ko xam fay jaar waaye xamal ne du li ngay dégg lépp mooy alxuraan xamal ne ba amee ñuy jàng alxuraan am na ñuy jàng alxuraan yi seytaan ñooñu fokk nga jëm leen a xàmmi ñooñu nag la yàlla di tëkku mooy di fenal yàlla yàlla nee na yàlla nee na am na ci ñi ñeme yàlla sax ba ne yàlla def na leen ay yonent te yàlla defu leen ay yonent te loolu it mbokk julit te jamono yonent bi alayhi salaam amoon na musaylimatul kazzab yéen ñëpp dégg ngeen ko aswadul ansi ay ñeneen ñoo xam ne ci jamono yonent bi lañ doon wax ne ay yonent lañ saxaaba yi xeex ak ñoom fay seen mbir waaye yonent bi nee na su ma fi jógee dana am fanweeri nit yu ñëw sama gannaaw ku nekk jàpp ne yonent la wala nabiya baadi juróom ñaar yi moom xam naa Sénégal lañ feeñ ñu ngi def xam nga ca des nag fu mu feeñ waaye Sénégal moom am nañ ba am yonent bu jigéen mi ngi noonu am nañ ba am yonent bu jigéen xam ngeen loolee day Gibraltar gi am na Gibraltar ko fi feeñ ne yàlla ko yónni et nit ñi kenn wuratu la wax laa ilaha illa allah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maa ngi jàkk ji xam nañ li may wax ah suñ seex waaw waaw mag ñi xam nañ li may wax kenn du war weeru koor ba mat kenn du wax laa ilaha illallah waxuma mi ngi xewee Pologne wala Washington ndakaaru jal jóob gi la xewee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Sénégal mooy dëkk bu loolu lu neex waay wax laa ilaha illallah kenn du ko wax mi ngi noonu am ay taalibe am ay cadre yoo xam ne ñoo ko topp mi ngi noonu loolee mbokk di musiba ala kulli xaal mbokk julit bokk na ci musiba nga nit taxaw ne man yàlla def na ma yonent bokk na ci musiba nga taxaw ne kii yonent la sa baay la ak sa maam la kum mën a doon nga ne kii yonentum yàlla la loolee ak ki weddi boole mi yonent ñoo yem ci yàlla dolli ci liste yonent gi ab yonent ak ki weddi yépp ñoo yem ci yàlla suñu borom nag mu ne ñooñu nga xam ne nii day dañuy def loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne tey boo mënoon a fekke fu ñuy dee boo mënoon a gis ni ñuy dee waaye mbokk loolu loolu kumpa la yàlla da ko nëbb ay jaamam yow mu loo ko xam waaye cey boo mënoon a gis fi ñuy dee même boo gisee na ña nga ne tekk noonu am na malaaka ya ñu ngi leen tiim di leen dóor yadribuuna wujuhahum wa aydi wa wa wujuhahum wa adbar wa adbaruhum xamuñu ko mi ngi noonu waaw wa zuhuruhum borom bi di leen dóor malaaka yi di leen dóor naan leen gëñ leen seen i seen roox gi tey lañ leen di fay mbugal mu leen di toroxal mbokk loolu muy sukuraat doomu aadama ñéppay jaar ci sukuraat sukuraat dafay nekk métit boo xam ne day muur yaram bi yépp yonent bi alei salatu wasalaam ci ñi ci gën a tarle ca la bokkoon waaye loolu bokkul ak nag intervention malaaka yi sukuraat boobu day ñëw ngir yëkkati say daraja far say bakkaar ba dara de su nag lu dul génn roox gi nag ca la malaaka yi nag di intervenir su dee ne waaju baax la ñu ñëw tagg ko teral ko sargal ko naxanteeg moom génne ruux gi mu mel ne ndox buy tuuroo ci biteel ñu jël ko malakul mawtu bu ko génnee malaaka yu jël ko yóbbu ko ci sor bu gudd amma bu dee saay-saay moom bu sukuraate ba pare ba dara desul jël ruux gi ruux gi day day ngoy ci biir yaram bi ndax xam na li koy xaar loolu tax malaaka yi di ko dóor naan ko bàyyil sa ruux gi mu génn tey lañ leen di fay mbugal mu leen di toroxal loolu nag mbokk julit nañu xam ni du feebar moo la ca yóbbu de dogal moo la ca yóbbu dogal moo la ca yóbbu loolu tax dara ci àdduna jaru ko bu la seytaane nax it ba nga ne naa jaar fii su ma amee gannaaw ba dinaa tuub déedéet wallahi tey rek am na benn mbokk bu ñu doon nekkal fi ci tafsir bi ñu koy wax Pam Niang presque fan yi li fi jógee dem umra dafa jóge fii dem Allemagne jóge fii dem umra tey mi ngi may nettali seen groupe bi jóge woon Allemagne ñi ngi ci nekk ak benn médecin nee na bërki biig ci guddi laylatul xadr gi ñoo ànd def seen i guddi laylatul xadr ba pare ci guddi gi mu am malaise daal di faatu xoolal loolu rek bokk julit médecin la moom ci boppam yàlla dogal mu dem makka ndeysaan nee na at yu bëri dafay dem umra mais nee na biñ ñëwee ci guddi gi la am malaise dégg nga daal di faatu biir biir makk loolu mbokk kan moo mënoon prévoir loolu bi muy bi muy def loolu ndax moom en tant que médecin mu jël ay matukaayam waaye mbokk dee mi ngi noonu amul lenn loo xam ne ni mën na la garanti ba nga xam ne sama dee bu ñëw danaa ko xam déedéet biru yàlla rek la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax daan ci profité it ñaanal suñu góor gu ñuy gu mag muy góor gi oustaz abdullah ba moo jiite woon li nga xam ne mooy malik si juma malik si moo ko jiite woon di magum sunna mu baax taxawu woon daanaka nekk kilifa gu mag ci sunu kii nekk fii yàlla dogal deux ans yëpp mi ngi nekkoon France di faju léegi ci lañ ma woon ne ma faatu na yàlla na yàlla jéggal ko yërëm ko dafa ko àddina muy wàccuwaayam ba ko àdduna mi ngi noonu kii jóge na fi dem France pour faju ji kii jóge na Allemagne dem Makka pour umra ji ñoom ñaar yëpp yàlla jël leen fañ jëm loolu moo tax yow foo toll rek waajalal sa bopp nooy waajalal sa bopp mooy yéeg ne maa ngi ci li neex yàlla jeex na foo toll yégal ne yaa ngi ci li neex yàlla te moytu sa kemtalal kattan sa noonu yooyu noon bi gën a rëy ci say noon yow doomu aadama mooy kii woote jëme ci réer mooy noon numéro un ñoo gën a bon agresseurs yi ñoo gën a bon sàcc si ñoo gën a bon truand yi mooy ñiy woote di yàq diine moytul man nga cee mucc sa njaboot du ci mucc man nga cee mucc sa njaboot du ci mucc moytu leen kemtalal kattan bokk na noonu yi gën a magit la nga xam ne mooy sa bakkan bi bokk na noonu yi gën a mag la nga xam ne mooy cheytaan waaye bokk na noonu bu mag bokk mooy adduna ak lim lay taaralal ci alal yaag jigéen yaag palga moytu leen dee day bette te bis bu la dee bettee amul lenn lenn loo doon ñaan yàlla loo dul rëcc lu dul rek dundaat mën a wax ab subhanallah wala allahu akbar wala nangam mais adduna gi ci biir yëpp da nga xam ne mbopp la du dara lu fi dul jaamu yàlla du dara ngalla waay bu leen nax bu bu bu leen bu leen adduna nax ci loolu su ko defee malaayka yi ne leen tey lañ leen di commencé mbugal lu bari ci borom xam-xam yi dañ koy daliloo ci azabul qabr ndax liñ ne al yawma tey ngeen ngeen di mas mbugal ndax alaxira ñëwagul kon azabul qabr mooy xaar ab yéeféer te it noonu la ko loolu la ko loolu la ko yonente bi alei salaam gëmee waxee mooy yéeféer malaayka yi buñ koy jël si dañ koy mbugal mi ngi noonu mi ngi noonu yadribuna wujuhum wa adbarahum malaaka yi bu ñu ko fekkee biir bàmmeel dañ ko fay mbugal suñu borom mi ngi ñuy wax firawnaake notabalam annaarun yuraduna alayha guduwan wa ashiya firawnaake notabalam suba gu ne ngoon gu nekk ñu gaaral leen sujeeru sawara yi lakk leen ba baa àlaxiri di doog a ñëw mi ngi noonu kon tey lañ leen di mosal mbugal mu leen di toroxal ci li ngeen nekkoon di ko waxal yàlla ci du dëgg wallahi mbokk julit boo amoon jot rek jàkkaarloog télévision Sénégal une heure de temps laa la may bala ngaa de bala nga faa jóge dégg téeméeri fen ñu fenal yàlla jalla wa ala waxal yàlla loo xam ne du dëgg concours concours ku nekk di concours ngir mbooloo mi gën a ñëw ci yow lu ne nga bakk ko say baay ak say maam mbokk loolu dara jaru ko dara jaru ko léegi mu jeex borom boobu subhanahu wa taala ni ak li ngeen nekkoon di réeréelu ci aayee borom bi réy réy lu aye borom bi mooy lan mooy bañ koo gëm bañ koo topp al kibru mooy batarul xaq ñu ngi noonu wa xamtu nas bañ dëgg xem nit ñi tey nag allaxiraa ngi nii ndax xam ngeen mbokk suñu borom amul temps ay jaamam lu wutal temps ñoo ñoo am démb am tey am ëllëg yàlla nag temps tëgg ko loolu tax li fi xewoon ak li nar a xew yem ci moom donc tëb na état bu génn na état bu dee indi directement allaxira ah dikkal ngeen ñu tey furada comme na ma leen bindee mbokk àllaaxire kenn du dem na xaaral ma xaar suñu Ousmane mu ñëw gunge ma laa kenn du dem na ada saa baay ma ñëw ànd ak moom laa képp kuy dem yowmal qiyaama xam nga ñu lay gunge saa'iqun wa shahid heure boo bu xet sa bàmmeel ñaari malaaka lay escorté yóbbu la ci yàlla doo ànd ak ndey baay sëriñ oustaz professeur koo mën a yaakaar furaada da ngeen di dikkal yàlla kenn par kenn mi nga noonu képp ku mën a doon suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na comme na ma leen bind njëlbeen yaramu neen la ñuy def yaramu neen góor ak jigéen góor ak jigéen yéen a ngi fàttaliku yaay Aïcha ba mu laajee yonent yàlla ba yaramu neen góor ak jigéen mu ne ko Aïcha mbir ma gën naa ñàng ngay xalaat naan kii góor la wala kii jigéen la ndax li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi ku nekk sa mbir itteel na la ba doo xalaat keneen ku dul yow gis ngeen borom bi nag subhanahu wa taala na gaa yi ñëw ngeen a waaw ana la ma leen defaloon xawwalnaakum mooy la ma sotti woon ci yéen ci ay nattu ey monsieur le président xaw ma ñaata président ñoo nar a ñëw ana la ma leen joxoon ey milliardaires yi ana milliardaires mi nga noonu ay artistes yi ana la ngeen mbooloo ma leen daan topp di leen tag tagg ana la ngeen yoroon ci àdduna loolu lépp borom bu ñu ne bàyyi nañ ko seen gannaaw ana ñu yaakaaroon ne ah diw mooy nekk seen diggante ak seen borom ana ñooñu ña nga xam ne jàpp ngeen ñoo leen daram bu anañu ngeen jàppoon ñooñu anañu suñu borom yàlla mu ne dagg na la leen lënkale woon taqattaa mi ngi noonu baynakum man koy nettali ca baqara istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u keroog ngay gis ñi ñi daan jaamu yépp ña ca baax ak ña ca bon daan denc ña nga xam ne dañ leen doon jaamu su doon te ne ña bon ña daañu wax ni leen toppoon ñun kat topp leen ñu woon jaamu leen ñoon ñu ne waaw yéen ñu doon woo ci jaamu ga ñuy dàgg sante suñu borom boole leen tabbal sawara amma bu doon te ne ña nga xam ne dañoo baaxoon ñu leen di jaamu seen gannaaw lu mel ne Uzayru lu mel ni Isa ibn Maryam suñu borom mu ne ulaika anha mubadun ñoom kay du dañu sori mbugal ndax ñoom woote wuñu jaamu yëguñu jaamu fekki wuñu ak jaamu mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni li ngi nii day tey réer na la ngeen nekkoon di ko njort ca mbokk àllaaxira déggal téereb yàlla bii day suñu borom moo ko jagleel ñi nga xam ne dañoo am yaqiin gàllawaay sa diine teg ko ci yaqiin yaqiin ba xam nga mooy lan wéetalal yàlla xam ne laa ilaha illa allah kenn du la jëriñ wala mu lay lor àdduna ak àllaaxira ku dul yàlla leneen lu dul lii nag ay njort la leneen lu dul lii ay njort la jàpp ne rek suñ juuka yi dëgg-dëgg moom xam naa ne moom comme man gëm naa ko àllaaxira da dana ma tabbal aljanna mbokk loolu ay njort la lay yaqiin dëgg lay xaq dëgg mooy li yàlla wax ci téeréem te yàlla ay waxam du soppeeku yowmal qiyaam mi ngi noonu Cheikh Ousmane
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسنا ربنا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بارك الله فيكم سنبرا مني inna allaha faaliqul habbi wan nawa yàlla day mooy xar pepp mooy xarit xoox ya yuxrijul xayya min al mayit mooy génne lu dund ca la nga xam ne daa dee wa yuxrijul mayita min al xay mooy génne lu dee ca la dund zalikumullah kooku day ñeel leen mooy yàlla fa anna tufakuun fan ngeen dëppoo bay jaamu leneen lu dul moom faaliqul isbaax moom moo xar la nga xam ne mooy suba ya wa jaala layla sakana moo def guddi mu nekk daluwaay mi ngi noonu wa shamsa wa- wal qamara xusbaana moo def jant bi ak weer muy loo xam ne daa nekk ci ab nattale muy calcul bu mu ko def zalika taqdiru al aziz al alim lii de mooy nattaleb ka not lépp ci kattanam ka nga xam ne moo xam lépp wa huwa allazi jaala lakum nujuma li tahtadu biha mooy ka leen defal biddiw yi ngir ngeen ci mën a jube jube fii mi ngi noonu fi zulumatil barri wal bahr ca la nga xam ne mooy lënd mi suuf muy jiiri ja wal bahr ak géej ga qad fassalna al ayati li qawmi ya'lamun ñun day teqale nañu aaya yi ñel xeet boo xam ne day xam wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida yéen ñëpp moo leen sose ci benn bakkan fa mustaqar mu am ab saxuwaay wa mustawda mu am ab daluwaay qad fassalna al ayat ñun day teqalee nañ aaya yi li qawmi yafqahuun ñeel xeet boo xam ne dañuy am ak dégg mi ngi noonu mbokk suñu borom nee na mooy xar pepp te ji sëñ Caam day dem ca tool ba sànni fa ay pepp dugubam mogaa yi pepp boobu kan moo ko fay fekk daa di koy xar génne ca benn luy loy loy loo xam ne nii comme wëtteen lay doon may ko kattan mu yëkkati suuf bëtt ko génn mu koy yëkkati ba mu yàgg mu nekk gattax ba mu yàgg mu génne ay gub pal-pal génne waat benn pepp boobee mën a génne presque lu jege dix mille pepp gaa yi kat moo def loolu ndax pepp bi moo ko def boppam ndax xërëm tàngam ak cheikh tàngam moo def loolu déedéet la nga xam ne it mooy xoox yi tey jii nga amoon sa benn xooxu mango daal di koy suul fii yàggul dara mu bëtt suuf am ñax bu ci génne di dem di dem man ngaa dem boo tukki woon ñëw fekk mu nekk garab gu dëgër daal di muur car yi xaw a muur jàkk ji yépp nga man caa génne ay tonnes ak mango balaa dee ay tonnes yu tonnes mën nañ ko caa génne ca benn xoox la woon gaa yu ko def loolu muy allah jalla wa ala borom boobu mooy fekk lu dee mu génn ci luy dund mi ngi doon fekk lu dund mu génn ci loo xam ne nii lu dee la loolee da ngay gis ni tey da ngaa gis benn ganaar a ngi nii génne benn nen nen bi boo ko jëlee toj ko mu nekk ndox nen boobu boo ko génnee fii mu daal di génne beneen ganaar suuf ngi nii wow koŋ suñu borom yàlla wàcce ci ndox mu daal di génne gàncax gàncax googu day mujj dem ba mujj moom it mu wow balaa wow génne ay ay yeneen i doom donte ne borom xam-xam yi bokk na luñ koy wax it mooy génne julit ci biir yéeféer mooy génne yéeféer ci biir julit comme ni mu génne Ibrahim ca baayam yéeféer boobee ni mu génne doomu nuux ca nuux alayhi salaam suñu borom nag mu ne kii mooy yàlla ay zalikumullah allah mooy al ilah ki nga xam ne moom rek yooyu ñu koy jaamu kenn rek la mooy ki nga xam ne mooy bind di génne keneen ku dul yàlla suñu borom mu ne ñoom ñëpp buñ dajale woon lan yaxluqu zubaaba am déet mboolem leneen lu dul yàlla suñ daje woon mënuñoo bind benn weñ gis ngeen gis ngeen kon fan ngeen di wëlbati ko bay jàq naan yaa keneen ku dul yàlla te yàlla rek mooy aji bind ji yàlla moom nga xam ne mooy xar la temps faaliqul isbaax guddi gi lëndëm këriis nu taag bu mujj yàlla yëkkati ab jantam mu niit ñu leen jël xarna ah arrêté leen lekk ak naan commencé leen julli faaliqul isbaax moo yëkkati jant bi def ko mu nekk wala mu jël guddi defal leen daluwaay te loolu it mi ngi noonu mbokk jullit yàlla subhanahu wa taala moo def guddi mu ànd ak suñu nim ñu bindee suñu biir yaram bu guddi jotee ca ngay mën a dale ba dañ naan le une heure de temps yi nga nelaw ci guddi moo gën deux heures de temps yi nga nelaw bëccëg ndax guddi moo ànd ak sa ni la yàlla subhanahu wa taala horloge bi yàlla def ci yow moo la mën a dalal mu ne jant bi ak weer wi da ko def xusbaan mbokk jant bi dafa am cycle bu muy bu ko yàlla di tëralal ci kaw asamaan bi cycle boobee du ko wàcc du ci tardé benn seconde weer wi naka noonu looloo tax tey jii boo demoon scientifique yi mën nañ la wax fii ak un siècle kañ la jant bi di nëbbu kañ la weer bi du nëbbu ndax la nga xam ne seen calcul bi leen yàlla calcul duñ ko teggi bu gaa yi jant boobu ndax moo tàggat boppam ah loolu xel mënu ko xalaat mi ngi noonu weer woowu ndax moo tàggat boppam ñaata allure la jant boobu di daw ñaata allure la suuf si di daw ñaata allure la weer wi di daw kullun fi falakin yasbahun te du am benn minute de retard jamais jamais jamais jamais loolu mbokk ki koy def mooy suñu borom jalla wa ala mi ngi noonu loolu nag borom boobee nga xam ne nii def na ko moo tax mu ne mooy taqdir al aziz ki not lépp ci kattanam tey jii da ngay gis boo demoon ñi gënoon a aay ci montre mooy waa Suisse xam ba léegi am déet waaye ñoom mosoon a jiitu ci montre dañ naan dañuy génne montre yoo xam ne garanti nañ ko 10 ans yu nekk benn seconde lay retard pendant 10 ans man ko takk 10 ans benn seconde lay retard amma montre borom bi nga xam ne xaw ma combien de millions dana la ko defaral ba tey retard ugul benn seconde mu génn mooy al al xamar ash-shams wal xamar bi xusbaan borom boobu it ne maa leen defaral biddiw yi ah kon yow mi xalaat xam nga ni mboolem luy gàncax yàllaa ko moom luy garab yàllaa ko moom mooy dundal mooy rey nee na itamit maa tàggat jant bi jant bi jant bi yàlla la weer weeru yàlla la nee na biddiw yi ngeen di gindeekoo ci guddeeg ci ci ci suuf ak jéeri ji maa ko def ca mbokk alhamdulillah dem nañ ba yàlla tey may ñu li ñuy tudd ay busol ba mu amee ci kaw suuf ma tugg fi deux siècles ay busol nga xam ne léegi gars yi bu ñu nekkee biir géej daañ ko mën a xool xam ne fii lañ fii lañ jëm mais bu njëkk lan moo nekkoon seetuwaay ñiy réer ci biir jaww ji ci kaw rek la ñuy xool boo demoon ci àll bi biddiw yépp am na lañ ko ay tur tey jii boo ñëwoon ne man day dama bëggoon ne dem Pikine ñu ne Pikine ñu ne yaa ngi seen ñox bi ñay beeg ñox bi ñu daal teg ci sa jë da ngay dem ba Pikine nga ne tey jii man de damaa bëggoon dem Ngor ñu ne Ngor gis nga seen buntu buntu kër màkk yi mu naaw jëlal bii nga daal teg ci sa jë da ngay dem ba yegg buntu kër màkk ji mi ngi noonu noonu lañ ko daan defee ci kaw asamaan xam biddiw yépp heure bu ñu masaan réer ci guddi bu ñu téenee rek xam ndeyjoor la ñu war a jaar wala càmmooñ ña nekk biir géej bu ñu bu ñuy bëggee réer bu ñu téenee rek xam ndeyjoor la ñu war a jaar wala càmmooñ li tahtadu biha loolu moo taxoon yàlla indi ko gannaaw ba nag am na ñu koy utiliser di ko seete comme ni ko tubaab bi jëlee def ko horoscope mi nga noonu loolu moom ak réer la ak shirk la borom boobu subhanahu wa taala mu ne teqala naa samay aaya ñeel ñiy xalaat ay yow mii xalaat xalaat ne yàlla moo bind lépp yàllaay taxawe lépp waaw kon lan ngay soxale keneen ku dul yàlla yàllaa li bind moo bind lépp lu nekk ci kaw suuf yàlla lay taxawee mooy taxawal lépp lu nekk ci kaw suuf kookee nga bëggoon a yaakaar mindaa fanug yàlla te yàlla koy taxawee wolof nee na koo yaakaar yàlla la yaakaar waaye teewul wolof yi bëri di di bokkaale te waaye bu dee ko yàlla ko yaakaar yàlla la yaakaar kay sëñ bi loolu day day day waar am na benn léeb yaakaar naa sëñ ñoom Diouf mën nañ ma ko léebal ci tukulóor ñu ne tukulóor yee koy léeb ñu ne bu dee dañoo yor suñu cere ñëpp di di siime seeni rangooñ da ngay jooy siim sa cere ku la ñaan ñeex dana ko jooy la yow tamit yaa ngi dégg waaye mbokk suñu digganteeg borom bi noonu la ku nekk daa am lu ko doy looloo tax ba yow boo yaakaar yaakaar yàlla rek suñu borom yàlla mu ne xeet yi xam mi ngi noonu gannaaw bi mu ne yéen doomu aadama yi yéen ñëpp maa leen bind jël leen ci benn bakkan muy aadama alayhi salaam loolu nekk kawtéef te mbokk fa lillahi alhamdu ba ñoom Darwin ak ñoom Karl Marx dévier lu ay millions yi millions ci doomu aadama yi dem nañ ba science mujj découvrir na ñoom théorie yooyu ñu doon wax saxul bi ñu demee ba yàlla woon ñu li ñuy tuddee ADN ca lay borom xam-xam yi gis ni doomu aadama yi dafa am benn yoon bu ñu jaar ñoom ñëpp ñoo bokk cosaan mu safaanoo complètement ak golo yi comme naka Darwin gëmee ay taalibeem kon science pour découvrir na nekk te doomu aadama yëpp ñoo bokk point de départ te loolu la ñu yàlla wax mooy yéen ñëpp maa leen bind ci benn bakkan mi aadama alayhi salatu wasalaam gannaaw ba njabootam gëm ci génn yëpp mu defal leen mustaqar foo xam ne fa la ñu war a saxi donte ne mustawda dana am fu ñuy jaar borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bari am na ñu ne mustaqar mooy famille sax ci biiru yaayam fi qaraarin makin mustawda mooy fa mu jaar ci ndigg baayam am ñu ne mustaqar mooy ajjana wala sawara mustawda mooy fa muy jaar ca bàmmeel ala kulli xaal la koy tënk rek mooy la suñu borom wax ne la tarkabunna tabaqan an tabaq dama adama da ngay jaar ci xaal jëm ci xaal da ngay génne si biiru yaay wàcc kaw suuf jóge bàmmeel dem yomul xisaab gannaaw ba nga mujj àjjana wala nga mujj sawar borom boobu nag mu ne nii laay teqalee samay aaya ngir ñi am ak dégg-dégg yafqahuun nit ki mën ngaa xam waaye du dégg ñi nga xam ne am nañ ak dégg-dégg dana leen jàngal ne laa ilaha illallah yal na yàlla boole ñu ci ñooñu
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم jazakallahu khayra suñu borom jalla wa ala mu ni wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'a mooy ka wàcce jële ca asamaan li di am ndox fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in ñu daal di cay génne meññetum mi ngi noonu lépp lu mën a doon mooy gàncaxug lépp lu mën a doon fa akhrajna minhu xadira noonu lañ cay génne la nga xamee ni nii mooy gàncax gu verte ga nuxruju minhu habban mutarakiba ca loolee it ñu génne ca pepp moo xam ne ma nga rankalikoo mooy dajaloo doon ay buul yu bari wa min an naxl soo delloo ca tàndarma yi it min tal iha da nga fekk ca tóor tóoram ya yàlla mu ne danaa ca génne qinwaanun daaniya mooy cabbi tàndarma yoo xam ne nii yu jege la booy laal di ko jot ak sa loxo wa jannatin min anab ak jardin yoo xam ne ci raisin lay doon wa zaytun ak olive wa rumaan ak la nga xam ne nii mooy ay grenade yonte ne ñun wolof yi du ñor suñu réew looloo tax ñu koy firee noonu mustabiha mustabiha doon loo xam ne yu nuroo lay doon wa xayra mutashabih donte ne ni nekkul di aju nuru unzuru ila samari xool leen jëm ca meññante ma isa asmara heure bu meññi wa yan i xool leen jëm ca ñorom nga heure bu ñore inna fi zalikum nekk na ci lii ñeel leen day la ayatin li qawmi yu'minun ñeel ay aaya ñeel xeet yoo xam ne dañuy gëm donte ne wa ja'alu lillahi shuraka al jinni wa xalaqahum defal nañ yàlla ay bokkaale ci jinne ya ca moo ne moo leen bind de wa xaraqu lahu banina wa banaat sosol nañ ko ay doom yu góor ak doom yu jigéen bi gayri ilm ci loo xam ne teguñu ko ci xam-xam subhanahu wa ta'ala amma yasifoon sell ñeel na sell ñeel na ko kawe na ca lañ koy melal badi'u samawati wal ard kii nga xam ne moo sos asamaan yi ak suuf anna yakunu lahu walad nan la koy ñeele doom walam takun lahu saahiba te ñeelu ko soxna wa xalaqa kulla shay'in te mooy bind lépp lu mën a doon wa huwa bi kulli shay'in alim te mooy aji xam ci lépp lu mën a doon mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu sànq ñu xool kaw jaww ji mu ne moo tàggat jant beeg weer weeg biddiw yi gannaaw bu mu ne xool leen seen bopp huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida doomu aadama doy na ko bind rek mu xëy di xalaat ci boppam ñu ngi noonu waaye gannaaw ba xool leen seen suuf ba nga téenee ba ba waaru xool sa bopp waaru xoolal sa suuf barab bi mu ne man maa wàcce ndox mu jóge kaw asamaan gaa yu ndox moomu mooy ndoxum yàlla moom rek moo ko mën a wàcce ñu ngi noonu moom rek moo ko mën a wàcce tubaab yi am nañ ay pexe bu ñu gisee benn nuage bu am ndox ñu am bombardé ko ci li ñuy tuddee xaw ma nan sel argenté bañ ko ci ah ah waaw mi ngi noonu buñ ko ko sànnee ndox wàcce ma saa gis président bi fi jaaroon mu ne waaw loolu daañ ko jëme lijjanti waaye nag da ngeen di ñaan yàlla mu xiin de gis ngeen ndax moom bala bala bala mu am mu xiin mi ngi mel ne rek tey médecin bi dem fekk jigéen bu ëmb mu opéré ko mu am doom ndax moo indi doom déedéet daa fekkoon mu ëmb kon mbokk am ndox processus bi muy jaar évaporation bi am ci géej ya am ca dex ya jant bi intervenir vent ya yàlla di dajale ba mu nekk ab taw lu yaatoo yaatu la gannaaw ba nag yàlla wàcce ko na mu ko neexe yàlla mu ne maa ko wàcce génne ci meññatum lu mu mën a doon lépp luy génn mbokk taw moo koy génn wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayy façon bu ne yàlla génn ko ca ba bi may mujj dégg bokk na lu ñu naan plus de deux millions d'espèces ci ay gàncax gaa yi recensé nañ ko ci kaw suuf plus de deux millions d'espèces suñu borom mu ne maa ca génnee am ñax goo xam ne gu verte la te loolu mooy kawte fi yàlla demal ci taw muy doog a taw xoolal gerte ñebbe bisaab lu mu mën a doon lépp buy génne verte lay commencé gannaaw ba nag suñu borom yàlla génne nag commencé di ci génne pepp yi benn pepp nga joxe woon benn pepp dugub benn pepp mboq suñu borom génneel la ca pepp yu lënkaloo ba tey benn pepp dugub boo ko jëloon suul ko di ko ma di ko sàmm ba mu génn ay gàttaxam ba génn ay mboolam yéen waa Ndakaaru xamu leen loolu génn ay mboolam nga jël ko mbool ko yëpp xool da gis benn pepp ba nga génne woon ba nga dugaloon génne na un million de pepp mu taraaki ba suñu borom mu ne xoolal tàndarma yi maa koy dem ba mu jëm a génne ci ay tóor-tóor gis ngeen. génne ci la nga xam ne mooy ay cabbi tàndarma yoo xam ne yu leen jege la te Arabie saoudite tàndarma kenn xamul ñaata façon téeméeri tàndarma am am na tàndarma yoo xam ne nii dafay gàtt daa di féete suuf nii nga xam ne bu la neexee sax tëdd ci suufu tàndarma bi di jàpp rek di dagg di lekk gis ngeen xinwaanun daaniya borom bi subhanahu wa taala mu ne raisin yit naka noonu raisin il y a plus de trois cent for kii nuñ koy wax façon raisin am na ci kaw suuf raisins yi noonu laa leen ko defalal bu bokk ci fruits yi gën a màgg mooy tàndarma ak raisin ak la nga xam ne mooy zaytun di olive la nga xam ne mooy rumaan di ay grenade suñu borom nee na boo ko xoolee mushtabihan wa ghayr mutashabih dañuy nuroo waaye dañuy nuroo te nuroo wuñu loolee am ñaari ñaari ñaari mbir ñaari déggéen mooy da ngay gis ne lii nga xam ne nii moom mooy ñaari fruits mën nañoo bokk ñu mel ni ñu nuroo fekk ne dañoo safaani ko masalan lu mel ni ay ay poire yi ak pomme boo koy xool dafa mel ni lu xaw a xaw a jege fekk ni bokkuñu waaye xatta ci benn garab gi mango laaj leen ci amiri ñaata façon mango am man nga gis mango bi nii sax ci bitim mi mango nii waaye boo ko mosee rek mi ngi noonu mi ngi noonu kenn xam ne benn bokku ci ak sa morom gis ngeen mutashabih ñoo nuroo ci jëmm te nuroowuñu ci melokaan mi nga noonu am na loo xamee ne nii ñun fañ nekkoon ci àll ba benn garab goo xam ne dañ ko tudd woon xaay neex xaay neex benn darkase doom yi verte lay génne comme yeneen garab yi mais boo ci dagg boo màttee day saf saf ak sukkar gis ngeen loolee kon borom bi moo ko def borom mën a xool leen meññeent bi bi muy doog a génn meññeent lu mu mën a doon demal mango ja demal ca lu mën a doon ci ci garab yi nga xool ba muy doog a génne meññeente ma waaye xoolal ba mu ñoree mbokk meññeent yi doog a génne en général lépp day verte ba muy ñor suñu borom yàlla changé couleur bi yee jaune yee xonq mi ngi noonu yee am ay chocolat gannaaw ba changé xet gi indi ci xet bu neex xoolal ay melon yooyu xoolal xet bi ñuy àndal changé la nga xam ne mooy tafka gi loolee mbokk kan moo koy def kenn rek la amul ku ko ñaareel muy allah jalla wa ala moo tax mu ne nekk na ci loolu ay kawteef ñeel ñi gëm ñi gëm lan ñi gëm laa ilaha illallah teewul nañ ñi xamul ñoom suñu borom nee na utal nañ ko ay bokkaale te jinne ya utal nañ ko ay bokkaale te jinne ya ay laat ay uzza ay nangam ay nangam utal sosol nañ ko ay doom yu góor ak yu jigéen chrétien yi na isa doomi yàlla la yahud yi na uzayru doomu yàlla la yéefir arab yi ne malaaka yi doomi yàlla yu jigéen lañu ñu ngi noonu ñu ne malaaka yi ay jigéen lañu ay doomi yàlla lañu borom bi mu ne yàlla day kawe na ci li nga xam ne dañ ko koy melal moom mi nga xam ne moo bind asamaan yi ak suuf naka lay amee doom ci amul soxna bokk loolu munta nekk doomu aadama da ngay gis bala ngaa am doom da ngay ànd ak ku mel ne yow ci ay soxna waaye borom bi mu ne naka loolu di dama ne nekkee loolu lépp yàlla nga koy wax ngir tontu leen waaye ala kulli xaal yàlla kawe na ci di am doom borom boobu nag nee na xalaqa kulli shay'in kulla shay'in ay doomu aadama xamal ne lu mbir màgg màgg sa bopp mbindaa fanu yàlla la moomeelu yàlla la jibril a ko baax muhammad alayhi salaam a ko baax waaye ñoom ñëpp mbindaa fanu yàlla lañu ay jaami yàlla lañu da ngaa war a ànd ak ñoom jaamu yàlla mi nga xam ne moo leen bokk bind ca it mooy ki nga xam ni lépp lu mu mën a doon jalla wa ala moo ko xam ay moo xam nu mu lay xettalee moo xam nu mu lay mbugale moo xam nu mu lay yokki moo xam nu mu lay wàññi mooy xam nu mu lay reye moo xam nu mu lay dekkale innahu bi kulli shay'in alim yal nañu boole ca ñi koy jaamu duñ ko bokkaale ak dara yal nañu boole ci ñi muy teral adduna di leen teral alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain yaayi mu yonente yàlla muhammad ak papa yonente yàlla muhammad ñoom dañoo dee ci fatra ñoom dajewuñu ak yonent dajewuñu ak yonent bu leen waar loolee da ngay gis ne mooy la nga xam ne moom la am ñooñu dajewul ak yonent bu leen waar nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yawmal qiyaama la leen yàlla di nattu yónnee leen ay ku leen di wax ne seen boroom nee na ngeen dem tabbi sawara ne yàlla xamoon ni bu leen digalee ca àdduna ñu nangul ko daal di jóg ne ñun lu yàlla wax ñu def ñooñee ñu boole leen dajale leen yóbbu ajjana ña fa toogoon di wax naan yàlla dañuy sant lu ñu man yàlla am ci ñoom lay ne bu doon àdduna it nii la ñuy weddee ñu dugal leen la nga xam ne ni moom mooy sawara wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah aleykum salaam naam naam ndax jinne yi bi ñu waxee seen mbokki jinne yi kaay leen wuyu woote ko tabi yàlla bi yaxfir lakum min zunubikum wa yujirukum min azabin alim ndax loolu day wane ni jinne bu jaamoo yàlla la ko yàlla fayee mooy mu mucc ci sawara rek loolee am na ay borom xam-xam yu ko wax waaye wax ba bu dëgërul wax ba bu dëgërul la gën a dëgër mooy la nga xam ne moom la jumhurul ulama wax mooy jinne bu jaamoo yàlla àjjana la jëm suñu borom ba muy wax xiiwul waa àjjana daf ne fa bi ayi alaai rabbikuma tukazibaan daa di wax xiiwal ya jigéen ñaak lal yaak lekk yaak yépp ay xiiwal gu mu wax teg ci fa bi ayi alaai rabbikuma tukazibaan loolee kon day wone ni la borom bi di wax ne wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan képp ku ragal yàlla gëm yàlla bokkaalewu ko dara nit nga ak jinne àddina nga jëm wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw waaw waaw waaw waaw c'est-à-dire que ne ne borom bi dane danaa feesal sawara ci nit ak jinne ñee jàpp ne jinne sawara sawara la jëm wala mu nekk poussière ñoom loolu la ñu wax parce que yàlla waxul danaa feesal àjjana daf danaa feesal sawara ci nit ak jinne mi ngi noonu te it sawara mooy fees mais àddina du fees àddina waa àddina yépp daan dugg ku ne yàlla jox la sa nguur àjjana des loo xam ne yàlla day sos yeneen i mbindaa fa ñu dëkke ko waaye àjjana du fees gis ngeen ama sawara la yàlla di feesal ci nit ak i jinne loolu na mi ngi noonu waaw mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaye daal ci gàttal jinne bu jaamoo yàlla aj àjjana la jëm wallahu alam naam kon waaw ñu mujj ci kii fet ah ah waaw waaleykum salaam mu ne la la la ñetti fani bàmmeel amul ñi créé sarxu ñetti fan kay ñoo ko ñoo ko créé waaw waaye ñetti fan daal ci liñ ca xam ci néew mooy yonente bi alayhi salaam da doon tere ñu jooy ab néew lu ëpp ñetti fan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba rakkam jafaatoo jaafar ca mu'tata muñal na waa kër ga trois jours gannaaw ba mu dikkal leen ne leen bu leen jooyati sama doom bi gannaaw tey sama frère bi gannaaw tey gannaaw ba it dañ naan kenn du wane tiis ci nit ku dee bàyyi la doom la xarit la lu ëpp ñetti fan lu dul ca la nga xamee ne nii moom mooy jë jëkkër ju dee jabar ji wane tiisam quatre mois dix jours loolu tax kii di yaay umu salama ba bàyyam ba dee pendant ñetti fan mi ngi am tristesse gannaaw ba mu wax xale yi ñu indil ko mu daal di tusngalu def kii ñu ne ko lii nag mu ne yeneen tibaale sam dana bu kenn feeñal aw tiis ci nit koo deeyee lu ëpp ñetti fan waaye firiwul ne ñetti fani bàmmeel bàmmeel ku nekk la nga fa yóbbu ci mbon foofu la sa mbugal di kiyee am na ñoo xam ne jour bañ fa demee lañ leen di mbugal gannaaw ba ñu teggi ko am na ñoo xam ne nii ñaari fan ñii ñetti fan ñii un mois ñii un an am na ñu ñuy mbugal abadan ba ba bis penc di taxaw mi ngi noonu loolu mooy ku nekk wali li kullin darajaatu mimma amilu ku nekk la nga méngool moom ngay moom moom moom ngay def loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax amaa ñetti fan juróom-ñetti fan ñeent fukki guddi loolu lépp yonent bi bàyyi yoo ko fi woon wallahu subhanahu wa taala alam xam naa ko ah naam
ñoom jàkk bi dafa toll si dafa jënd tëli bi sëko léegi ñoom bu ñuy julli dañuy baal tëli bi ndax loolu moom war nañ koo def fii dañuy julli baal tëli bi jaadu na wala bi
waaw ala kulli xaal bu doon tene ne xëy na dañoo gis ne lu mel ne juma la nga xam ne peut-être ne li ñu koy baaree ay une heure de temps rek lay doon loolee moom ca waa dëkk bi la ëpp ci ñoom dañoo war a dem juma su dee loolu rek da nga xam ne dañ koo def rek ngir mbooloo mi mën a ñëw julli une heure de temps ñu ñu ñu ñu bàyyi ko loolee du ah non bu dee ay tarawih moom jaaduwul ay tarawih moom jaaduwul ñuy bari ay tali waaw parce que tarawih ay naafila la nit ñi doxi seen soxla ci naafila lañ nekk loolee moom nekkul di jaadu ñuy bari ay tali bu doon tane lu mel ne julli jumaa la daal comme ni ñu leen ko waxee nga xam ne jumaa ji moom kuy muskallaf war na la ñooñu di dawal seen oto ñëpp war na leen ah bu ñu gisee ne bu ñu baaree tali bi te ki am urgence mën na am beneen tali bu mu jaar loolee moom du ñu nekk lu ñuy ñaawul waaye bu dee ay naafile rek daal loolu moom jarul ñuy baare tali bi na ah.
police yi ñooy jëkk a baare sax man boo demee fu mel ne masjidu rahman.
waaw police yi sax ñooy jëkk a baare.
bu dee ajjuma waaw bu dee ajjuma bu dee ajjuma moom wax dëgg yàlla moom lu jaadu la mi ngi noonu wa waaw loolu moom moom lu jaadu la wax dëgg yàlla ajjuma moom lu jaadu la. waaye c'est la même chose àjjuma ak it benn la parce que it it ñëpp la war ñu ñëw ñu ñëw mi ngi noonu yonent bi nee na jigéen ñi sax nañ ñëw kon ñëpp ñoo war a ñëw waaw du bari du bari ñi dawal oto dootu bari incha allah xam naa comme ni ngeen xamee suba incha allah la ñuy jeexal suñu tafsiru weeru koor ci bëccëg bi di ñaan yàlla yàlla fekkaloo ñu ko ca nangul ñu lépp barakallahu fiikum